إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسعة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 عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا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 صراط الذين علمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتق لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وألا آل قدره ومقدار عظيم الحمد لله القائل في كتابه آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطينا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد القائل لا إيمان لمن لا أمن له ولا دين لمن لا عقد له رواه أحمد وعلى آله وصحبه ومن تبع يوم إلى يوم الدين وبعد فالإيمان لغة إقرار وتصديق وشرحا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الخير وشره ويقول اف بشري ليس الإيمان بتمني ولا بتقلي ولكن ما وقع في القلب وصدقه الأمل ويزيد الإيمان وينقص يزداد بطاقته وفعل الخير وينقص بالمعصية وعدم القيام بالواجبات أولا الإيمان يجعل المسلم صادق بربه عند الشدائد ويؤمن بالنصر الله ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لجاء إلى الغار مع أبي بكر الصديق فلق فرح بهما الكفار وهما في القاع فقال أبو بكر لو نزل أحدهم تحت القدمين لرأناه فقال له رسول صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني الاثنين إذ هما في الغار ويقول لصاحبه لا تحزن إن الله مأنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم سورة التوبة verset 40 بمعنى إن لم تنصروا محمد فقد نصره الله بأبي بكر على الكفار مكة ونصره ببذل بإنزال الملائكة فالله سبحانه وتعالى بسبب الإيمان نصر عبده محمد أمام ثلاثة أزمنته زمن الخروج من المكة فلم يراه الكفار حتى خرجوا وزمن وجوده في الغار فلم يراه وزمن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فموسى عليه السلام أنقذ الإيمان والشقة بالله حينما لقي به فرعون وجنوده فأصبح البحر أمامهم والعدو وراءهم فقال أصحاب الموسى إنا لمدركون وقال تبارك وتعالى فلما رأوا جمعان قال أصحاب الموسى إنا لمدركون قال كلا إني معي ربي سيهديني فأوقينا إلى موسى أن أضربوا بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كطور عظيم وأزلفناهم الآخرين وأنجينا موسى ومن ما هم أجمعين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين سورة الشغلاء عباد الله الإيمان الإيمان يجعل المسلم سارقا في كلامه فلا يكذب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب الإيمان يجعل المسلم مفلقا قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آية أربعة خمسة من سورة البقرة وقال أيضا في أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون بارك الله لنا ولكم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا caméraman yi boo leen ma mayoon ma jàkkaarloog askan wi dina baax lool allahu akbar والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا مكي جلتي مكي نيو بكرتي يالا نيو أربتكو دي لن باتو السلام عليكم ورحمة الله لين كيكا ورال موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخون نيو نه أمنا تيري يو يجيتو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نانغول نيو لينكو بي جيك ميغي نيو فك لين سي سين كور ñu am juróom benn fan beneen bi bi ñu demee ba am fukki fan ak ñaar si la yàlla wàccee seen téere beneen bi bi ñu demee ba am ba am fukk ak juróom ñett maanaam dix-huitième jour yàlla wàccee li muy wàccee ci ñoom waaye ñun bi ñu demee ba am vingt-quatre jours si la yàlla wàccee li nga xamante ne tey moom la màggal muy alxuraanul karim lan moo tax ñuy màggal koor gi si la yàlla wàccee alxuraanam si kan la ko wàccee si seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi kooku nag mooy ki nga xamante ne moo waral bés bi ki nga xamante ne moom mooy faj ki nga xamante ne yantiqu anil hawa in huwa illa yuux illa wahyun yuuxaa koo xamante ne du waxe si coobare boppam koo xamante ku feebar mu faj la moom sax bu feebaree mooy faj boppam ñu ne dëggit ñu ne yonent bi fan la faja boppam mu ne bi mu demee ba am ñaari at bi mu demee ba am juróom ñaari at si la ko feebaram dikkal première feebaram dëkk ñu ne ay bëtam moo doon métti mu wànnente woon wànnente bu métti ay mbokkam jël ko naka yaa rasulullaay lii mi ngi exagéré nanu dem seeti ki nga xamante ne moom mooy docteur bi kiy faj bi docteur bi ñëwee xool ko ne ko kii mënuma koo faj kii mooy faj boppam ñu ne si nan lay faje boppam mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam docteur bi ne ko kaay ma gis la mu ñëw ki mu àndal ki yonent bi àndal mu ne ko boo demee digal ko نكو تفلتم نكجل تفلكو تي لوخام رايكا تي بتم يي يوننتي بي نكا لولو رك مومي فاج دينا كو داف مو البرتكو جيل تفلتم تفلي بلوخو بي فاس مو رايكا تي كانامم بي مو كرايي سي كانامم يوننتي بي فوفو لا تاغوخ ليغا خامتني موم مودون فيبر بوب الله اكبر لولو نك كوكا يالا جوخ كو da war a tiitaroo ki nga xamante ne la la jox ki nga xamante ne woon bu dee valeur ci moom la fekk a baax muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag li ñuy waxtaane mooy ngëm te société bi laaj na ko ginnaaw ngëm nag si la waxee li nga xamante ne mooy jàmm mu ne ki nga xamantene mo doon wax mu ne al iman gëm mu ne al iman laysa bi tamanni wala bi taqalli walakin ma waqaa fi al qalb wa saddaqahu al amal bari na ñi di la laxasaayoo kurus ne dañu gëm du ma ne gëmuñu de ñi di def lu nekk waaye dal mi ngi ñuy xamal ne ngëm ci boppam mu ne amul tru chéri laysa bi tamanni wala bi taqalli te amul ngistal ولكن ما وقع في القلب ويندك لب لو خمنتني نيونا تي خول بي واي لان واي جف موي ليغا خمنتني موكاي وساري بو نيوي تي خول بي جف جي مان كو وساري جف جي نيك لو خمنتني لو رافيت لا وصدقه العمل ويندك جف جي موي كيغا خامتني موم موكاي دغال ني بابا لاي گمنا يالا بابا لاي بو گمي يالا نكا وني نكو جفه واي دما گم يالا دي باگنت دي نيو تي مصيبه يي نك تي ادنا بيب دانكا من نيو واخ ني ني ني دانيو گم يالا نيوم نيوكاي داف الله اكبر waaye nag ñu ne ngëm ci boppam mu ne ngëm wal iman يزداد بالطاقات والفعل الخير وينقص بالمعصية وعدم القيام على الواجبات نونك يا رسول الله لولو موي لان مو نغم بن مو يوكو ولا مو واñéko نونك اسكاي benn mu yokk walla mu wàññeeku duma ne imaam yi ma toogal taxawal nii ñoo fi gën a gëm yàlla ay nit yàlla ñu ngi ànd ci jotaay bi ñu gën a baax imaam yi ñu ngi ànd ci jotaay bi waaye na tekk di ñu déglu ngelawaay nañu am comportement boo xamante ne comportement bu rafet la góor gi dafa ñëwoon ànd ak ay doomam nekkete ñu ne papalaay moo fi ëpp xam-xam mu ne ko papalaay dama ñëw pour nga jàngal ma mu nekk ko nangul naa la ko dégg naa ne yaa fi dàq jàng mu ne ko waaw am na de dañu ne tund bi maa ci gën a mën a jàngale maa ci ëpp xam-xam ñu ne dëggal nañu la waaye dama bëgg nag nga jàngal ma papalaay papalaay commencé di ma jàngal ma am sama benn xarit mu ñëw bëgg a xam-xam bëgg jànga mu ne ko mën day yor naa fi benn sëriñ bu mën a jàngalaate ñëwal ñu ànd mu jàngal la Pape ñëw ñu yobbu ko ci sëriñ bi mu di ko jàngal di ko jàngal ba mu mokkal imam Babou mokkal na Papa ko jàngal léegi mu des Papa lamin Papa Lamine ñëw ñu di ko jàngal mu ne ko sëriñ bi yaa fi dàq jàngalaate nangul nañu la ko waaye Papa lamin dee imam Babou ne ko su ma génnee àddina sëriñ bi bu mu ma jiitee mu ne ko li nga wax rëy na de mu ne ko waaye xam naa ne sëriñ bi jëflanteem ak doom aadama yi rafetul mu ne loolu moo tax bi Papa Lamine génnee àddina yàlla na yéex ñépp taxaw di ko déglu imam bi ñëw ne day kàbbar imam baabu ñëw ne day kàbbar ñu ne ko déedéet imam kii bi muy génn àddina am na lu mu ma dénkoon mu nekk lu mu la dénk lan la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

اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج يالا ميغي واخ te yàlla du weddi boppam mu ne ma yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ne da ngeen gëm arkaaw na ngeen rukkoo was judo na ngeen sojoot waaye waabudu rabbakum na ngeen jaamu yàlla waaye lan la ci teg loolu moo ma jaaxal si Sénégal gii ñu ngay sujjoot ñu ngay rokoo ñu ne gëm nañu yàlla waye daf ci tek waf alul khayla laallakum tuflihun bo len beugé mucc de leen jëflante jëflante jo xamantene jëflante bu rafet la jëflante bu rafet da fay bok ci jaamu yàlla te da fay bok ci suñu société jëflante da fay rafet waye jëflante bu rafetul dara dootu ci nek bu ñu demee seeti Israël waroon nañoo mën a dem di ziar Israël Jérusalem parce que foofu yonent bi am na fa jaar-jaar yu am solo waaye nag ñun fàtte nañu ko ñun fàtte nañu ko te yooyu dafa am solo ci société waaye nag yonent bi allahu akbar kii waroon nañoo jaral lu ne mu ne am na ñett yoo xamante ne yàlla bu la joxee mission daf lay aaral boppam loolu moo tax man dama naan du ma tiit du ma ragal yàlla ma ragal yàlla ba noppi di ci teg doom aadama mënul ne nan lay nekk doom aadama boo xamante ne yorul sa teraanga doom aadama boo xamante ne yorul sa bakken nga taxaw ne damay ragal doom aadama bi bàyyi yàlla fàtte yàlla du dëgg du yoon bu ñu ko defee neenal nañ sunu bopp waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne mu ne am na ñetti événement yoo xamante ne dafa marqué jullit yi waaye yonent bi ci boppam daf ci jaayante ak ngëm yàlla gu mat sëkk mu ne ban la mu ne yonent bi génn nañu ko màkk yonent bi génn nañu ko màkk te fa la juddoo fa la fekk baax bi ñu ko génnee màkk nan lañu ko génnee màkk mbokk yi mu ne leen maa ngi leen di xamal ne sama mission tàmbali na waaye tam ñuy wax na ne bii yonent bi mission tàmbalee boobu la ibliis amatul jàmm allahu akbar ñu ne mission bi commencé na waaye balaa mission bi ñu ëlbatiku ne ko yaa rasulullah mu ne leen dama bëggoon a waxtaan ak yéen parce que yonent bi yàlla wàcce na ne naa oote mu oote lu ma treize ans kenn uyu ko waaye ay bàyyam ñu ngi fa woon ndeysaan waaye mu taxaw di wax ñoom mu ne leen loo leen di wax ñu nekk ko yonent bi dañu bëggoon a xam yow looy oote mu ne yàlla day moo ma jox mission ne naa dëggal ne yàlla ji benn la amul beneen buur bu dul jaamu bu dul yàlla mu ne ko yow yonent bi loolu mooy sa mission ñun ñu am lu ma trois cent et quelque yàlla yow nga bëgg a ñëw ne benn yàlla rek moo am allahu akbar kii nañ leen ko faxeel mu dee ñu ngiy faxeel yonent bi dama koy tënk ñu ngiy faxeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye biñu dafé réunion bi réunion bi ñu ngi ko composé de 100 personnes 100 personnes yoyu ñom ño wara def réunion pour fagagal yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ya rasulullah ki nañ leen ko ray wala ñu takka ka wala ñu genn ka mak réunion ba jot na cent personnes yi dugg nañu bi ñu duggee ñu ne bu cent personnes yi pare kenn na waxati kenn na duggati waaye bi ñu demee ba tëj bunte yi bi ñu tëjee bunte yi am benn góor bu ñëw di fëgg fëgg fëgg kenn uyulu ko mu fëgg ñu ubbil ko ñu ne ko loo fiy def xanaa xamuloo ne fi mu nekk fi ñuy réunion nii cent personnes rek lañ prépare woon waaye un bi bokk ci deux bi bokk ci mu ne un bi ñëw na de ñu ne bàyyi leen ko mu dugg Abu Lahab ne bàyyi leen ko mu dugg moom moo doon orchestré yëf yi bi ñu ubbee bunt bi mu ne leen Abu Lahab ne leen xam ngeen kii ñu ne ko déedéet xamuñu ko mu ne ko kii mooy Iblis ñëw na dugg na waaye bàyyi leen ko mu dugg. parce que Iblis mooy ki nga xamante ne lu ñuy def lu nekk moom moo koy moom moo koy orchestré te ndëg moo koy valide moo koy invalidé ñu ne yonent bi nan lañ koy def mu ne leen nañ leen ko rey kii ne nañ leen ko takk sànni ko kii ne nañ ko dugal ci néeg bi di ko jox ñam tuuti bu faites trois repas lay am benn repas rek la jox comme ça bu fi yàggee léegi mu dee Iblis na leen boobu baaxul parce que kii xale bi dafa bari mbooloo bu ñu ko bàyyee fii léegi ay fidèlam ñëw génne ko ne boobu baaxul ñu ne ban moo baax mu ne leen ko takka bu ko takkee ñu génne ko màkka bu yëpp ko ci gëléem génne ko màkka frontière bu mu dem baxna waye mom dafa nek xalé bo xamantene ay waxam dafa doy waar pour mu convaincre doomu adamay dafa yomba bàyyi leen ko ñu génne ko iblis ne leen boobu baxul ñu nek iblis ban mo bax mu ne mom day faral di dem day faral di dem kaaba gi bu 10 h jotee wala 11 h nañu len ko bayé buñu ko bayé fofu léegi ñu jël ko bu ñu préparé buy génn nañu leen ko dab rey ko comme ça ñun ñu noppalaku iblis ne leen boobu moo baax boobu baax na ñu ne waaw boobu baax na waaw lan moo ci des mu ne dañu waxoon cent un personnes waaye cent deux ñëw na mooy kan mooy Jibril fu iblis dugge rekk jibril dina ñëw dugg naka yonent bi bi mu duggee déglu leen ba noppi rek naaw dem bi mu demee mu ne leen mu nekk ko yaa rasulullah ñu ngi lay faagaagal waa màkk ñu ngi kompaloo bëgg laa rey waaye yàlla wàcce aaya ba auzu billahi min alsheytaani rajim wa iz yamkuruka وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك منكو جبريل موكو كو باخي منك يا رسول الله نيغي لاي فخيال نيغي لاي جيما راي واي كي داف نه نانيو لا راي كي نانيو داكلا كي نانيو ген لا ماكا واي يونتي بي اندا خا تيكم بيمو اندي اك تيكم

dañu gis na ne yéeféer yi kenn ku ci nekk fi nga tëddoon nga toog di xaar yonent bi pour guddi jot nga rey ko yàlla wàccee li muy wàccee lan la wàccee mu ne mu wàccee yaasin xoolal yaasin ni mu amee solo nan yaasin wal quraanil hakiim innaka la min al mursaliina ala siraatin mustaqim tanziilul aziizir rahiim li tunzira qawman maa unzira aabaa'uhum فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغنائهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مهمرون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغسيناهم فهم لا يبصرون ينتبه بمك bi أفك ko ëffee ëff ko ci yëfër yi kenn ku ci nekk fi nga du waxee ci coobare boppam du jëfee ci coobare boppam waaye ndëg loolu bu ñu rawee nañu jël ki nga xamante ne moom mooy Omar nañu jël ki nga xamante ne moom mooy Omar mu ne ab jullit du fenn ab jullit du fenn ab jullit kàddoom la am di ko sàmm si société bi bu ñu bëggee société bi baax Linga nga xamantene ne lañuy la def kenn ku ci nek li ngay wax na nek deug li ngay xam na nek deug li ngay na nekk lor société bi waye bu ne société bu que ba xamantene ne nit bu dootul samonté lolu du ab bu baax mu jël len Omar bi ko Omar dem ñu ne Omar bi mu nekkee à bas âge à l'âge de deux ans avant muy far bu yaayam daa or bu ñëwee ne man dey dama or tey waaye xaaral naa mosal Omar ci ween wi Omar du jël ween wi dafa mel ni day wax ne tam yaay da nga or man damay or kooku moo dëgg woon yaayam di waaj génn àddina Omar di dem fan la jëm mi ngi jàngi xam-xam mu ne ko waaw Omar yaa ngi dem sa papa génn na àddina bàyyi mag yow man maa fi des ak yow yaa ngi jàngi ji waaye nag lan laa lay dénk mu ne ko Omar bul fen fen rek laa la tere ci àddina am gaa ñuy àddu kalpe di ko wax bi mu demee ba ëlbatiku ay ñoo fi ñoo ko magoon ñu ànd di dem Omar ne leen man day sama yaay li mu ma dénkoon mooy bu ma fen ñu ëlbatiku Omar ànd ñi mu war a àndal ñuy dem di dem gaañi di leen addu kalpe bi leen gaañi addu kalpe ba noppi ñu ne kii moo ci gën a tuuti yorul xaalis ñu ne yorul xaalis yow taxawal fële ñuy laaj ñoomin pap lamin ñuy laaj ñoomin papalaay kenn ku ci nekk li nga yor nga jël ko joxe ko bi ñu ko joxee Omar taxaw na leen waaye yéen doo leen ma laaj man yoon naa xaalis ñu nekk xale bi li nga yoon dara baaxu si yoruloo dara yow xale bu tuuti bi mu ne leen wallaahi maa ngi xaalis ñu nekk lan moo tax nga di ko wane mu ne sama yaay dafa waxoon ne bu ma fen mbokki jullit yi li ci des mooy ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jéggal ñëw waaye nag mu jéggal ñëw

mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo ma fal lii tax ma wax loolu njaboot gi tasaaroo nañ njaboot gi nekkuñu benn te imam baabu lu mu ci man mënuma ci dara damay nangu nangul yëfu mag ñi ëllëg duma xam lan lay laayi borom bi tabaraka wa muy Sénégal gi ñu bokk nañu ko defar nañu ko waxtaanandoo nañu toog dañu toog ñu seet nan la ak naka la soxla nañu ko waaye mag ñi nag liggéey lu ñu lii mag ñi dañu daan jël tette ñu di ñu ëlbatiku di ñu yóbbu waaye tey fi mu nekk sañatuloo génn ànd ak sa njaboot ban société la ñuy dund ban Sénégal la ñuy boo xamante ne war nañu ko mën a defar dañuy oo autorités yi la ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ñu jàppale ñu ci li nga xamante ne moom la ñuy soxla muy jàmm Nous demandons aux autorités de l'État de prendre des mesures nécessaires allant dans ce sens, d'apaiser la situation actuelle pour créer un climat propice à un dialogue serein. Quelle que soit la nature du contexte, il faut toujours privilégier le dialogue à la violence et mettre en application ce principe de la charia qui est stipule que éviter un mal a priorité sur l'acquisition d'un bien. Nous, nous rappelons à tous nos compatriotes, en majorité des croyants, que nous sommes venus dans ce monde pour une finalité bien déterminée. Allah subhanahu wa ta'ala dit Je n'ai créé les djinns, les hommes et les femmes qu'ils m'adorent. Suratul Azariat, verset 56. Et que nous le quitterons un bon jour pour être jugés de nos actes devant le juge suprême. Nous, imams et oulamans, solidaire de notre nation, de ses joies, de ses espoirs et de ses tristesses et angoisses. Prions le bon Dieu subhanahu wa ta'ala, seul maître de l'histoire et de l'espace et du temps, de nous guider et de nous assister dans cette épreuve pour que la justice, la paix et la sécurité règnent au Sénégal pour toujours. Nous prions le bon Dieu subhanahu wa ta'ala qui conduit les événements du monde de la volonté de qui tout dépend de nous accorder la paix sous toutes, sous ses formes. Barakallah. Barakallah wa wa hakim. pour ne pas être loin mangi suis gërëm mangi sante ngi sant ñëpp ken dinaa la fekk fi nga toog ma jox la loxo ne la baal ma àq ameel nañ leen àq lu ci mën a am ameel nañ leen àq waaye nañu jàpp tout tànk bu yàlla yebaloon ci askanu wakaam mu ñëw présenté li nga xamante ne mooy jëfu mag ñi mu rafet loolu fa la maa ngi gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma escorté ànd ak man commencé que sécurité bi depuis barke le commandant de la brigade de Wakam nous ngi Akman, ak man di été nan la ces gens-là ont mérité de leur dire merci beaucoup Nous ngi leen di di leen sonorisation bi fa tabarakallah leen waye leen parce que ay Wakam lañu yu yëkëti seen teranga tegal ñu depuis fajar ba léegi ñu ngi coordonné ñun mu rafet loolu kon ngi di bokkoon ci imaamu papam imaam Moussa Gueye formé ma jàngal ma teg ma ci imaama gi kii sama côté mooy imaam Pape Lamine ànd ak man papam moo ma feeñal fa tabarakallah kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu def ñaan bismillah kon si ndigalu imaam bu leen fàtte tamit ne bésu tey bi bés bu am solo la si takbiraat yooyu ñuy def allahu akbar kabira alhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila dañ ko bàyyi xel waxtu julli wu jot def ko juróom-ñaari yoon ba ñetti fan yi jeex benen bi stop su tay bi bés la bo xamne ne boo demee si téere bi ñu tudde tuddee ko ñu fi adwa ila ghaflati wa zunub mo ngi fay jàngale aaya bi ñuy tudde ayatul hirs ayatul hirs nak boo ko déggee mooy laqad jaakum rasuulun min anfusikum ba mu jeex sa suratul tawba bésu tey bi bés bu am solo la si ku ko jàng téeméeri yoon yàlla man na la baal bàkkaar mën na la dundal man na bànteel seen njaboot kon loolu ñu fàttali mbokki jullit yépp bésu tey bi tamit ku si mooy yàlla mu ngi mel ni ñu dajale mbooleem mbindeef yi yàlla am yëpp yow wala qiyaamati nga mooy fa yàlla bàkkaar bi noonu lay toll buñ si dem soirée bu ñu si dem baali bu ñu si dem caaxaan ji lépp lu ñu si def lu dul jaamu yàlla yàq nañ ko képp ku ko def sa mboolem jaamu yàlla yàlla màgg na ko kon ay soirée sénégalaise ay Wally Seck ak yooyu yëpp si bokk yëpp boo si man a dem si boobu yàq na sa mboolem jaamu yàlla yëf yi yëfar la te ab julli nag day moytu jaamu yàlla ba pare këppal ko seytaane yàlla nañ yàlla doolu defal sutura kon si ndigal imaam bu jàng faatiha jàng ay tur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 ne moom mooy adjoint au maire muy euh, Chérif Diatta tey ana lan nga gisee li nga xamante tey ginnaaw bi nga nuyoo euh, ñi nga xamante ne yëpp mbokki euh, jullit yëpp xutba bi nga xamante moom la imam wax ñu jëm ci wàllu jàmm jëmaale tamit ci li nga xamante moom mooy wàllu gëm-gëm ah, balaa wax dara maa ngi nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yu Wakaam yëpp di nuyu ndaw mag jigéen sunu yaay ak sunuy pap vraiment di baalu ak waa Wakaam yëpp di ñaanal jàmm Wakaam Euh, di gërëm waa OTV 7TV média yi nekk Wakaam tout autour de Wakaam di ñaan yàlla rek euh, ñu julli si jàmm déwénati leen baal ma ak baal naa leen kon ci laaj bi nga laaj li may njëkk a wax balaa dara nuyu monsieur le maire Abdou Aziz Guèye di ko baalu ak di ko ñaanool yàlla euh, yéen bi nga xamante ni ñoo ko bokk Wakaam te jox ñu ko yéen ñu ko mu oyof lool ba nga xamante ni lépp li nga xamante ni mooy suñu mbébét ak suñu yéene ci Wakaam euh, ñu mën koo àggali ci juróomi at yi. xutba imaam nag jàmm gi mu woote man ñor na ma lool ñor na ma ci ngir ne ni liñ ma dénk ci Wakaam muy cosaan ak aada aada culture patrimoine historique mënu koo doxal fee Wakaam amul jàmm ndax nag kuy yee cosaan wala yee aada li ngay jiital mooy jàmm. jàmm nag pour nga am comme ni ko imaam waxee imaam baabu ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér ndax nag wax dëgg neex yàlla kàddu yu mu rotal tey macha allah am na solo lool lool lool. donc je disais que ni ah jàmm jàmm nag pour koo am foog nag leneen beneen point bu ma waxoon muy wàllu ngëm boo gëmee yàlla sa jàmm dina yomb ndax nag ku doylu am jàmm ku yéene jàmm sa morom yéene nag ca xol lay jógee te xol bu ci ngëm nekkulee boo gëmulee yàlla xol ba du rafet bu xol ba rafetee nag nga soog a matal jàmm kon nag kàddu yu ma tey am na solo caam yooyu it maa ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal say naataangoo kontaan nañu lool di ñaanal wakkaam ca kaw ca kanam lépp li nga xamante ni nag mag ñi bàyyi nañ ko fi muy ñaan te rafet li ma gis si wakkaam macha allah man ku kontaan laa gëm naa ni ndaw ñaa ngi topp ci tànk mag ñi et que ñu waxante dëgg bëri na fi gëm naa ni tamit lu jot a dëng rek incha allahu rabbi dina jub yal na yàlla defal wakaam jàmm defal ko Sénégal yëpp nag di ñaanal yàlla jàmm Sénégal yëpp ak àdduna wërngal këpp merci beaucoup. ayca ngi doon jërëjëf kooku nekk moom mooy Chérif Diatta di adjoint bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, maire Wakaam si kaddu yi nga xamante ne moom la wax mu doon kaddu yu am amam solo kon gars yi ñu jéem a xoolaat koo xamante ne rek ko mën a suñu micro léegi rek amaat benn réaction incha allah salaamaaleykum waa Wakaam ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yàlla may tey ñu fekkewaat li nga xamante ne moom mooy uh, julli korité wa a baax mu may ñu ñu teewekewaat ay at yu bëree bëri uh, at bu ñëw rek dàq morom uh, tey nag papa dañu lay bàyyi xel yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi seetaan mbokki Wakaam yëpp nga nuyoo nit ñi bu baax a baax tey wax leen ana tey naka nga bi nga xamante ne moom la jëm si wàllu jàmm jëm si wàllu tamit ngëm-ngëm ah tey dañuy sant yàlla julli ci yonent bi tey xol sedd na ci imam Babou ndax tey waxuma la ne wax na ko en wolof wax jàng na arab waaye wax na ko en français liñ doon ñaan mooy jàmm ci waxam jàmm ci Sénégal jàmm ci dëkk bi ñaan yàlla tàppe xol yi loolu lañ doon ñaan xutba bi nag mu ko teg ci jàngal ñu kuy yonent bi kuy rasulullaay jàngal ñu lim fi mu joor ak màggaay yàlla bi ko jox cër bi ba jox ko alxuraan tey vraiment imam baabu amul luñ ko wax kontaan nañ ci xutba bu baax waaw yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam yàlla yàlla dolli ko jàmm ndax tey wax na ak dëkk bi wax ko en wolof wax ko en français loolu mu si gën a neex nga xam ne message bi dina jàll ci population bi ñu xam ne ñun jàmm rek moo ñu moo ñu ñor dëkk bi état bi war na góor góorlu pour fexe ba assister ñëpp ñu teg jàmm ndax dañoo construire suñu dëkk ba pare. dañu am benn culture euh, républicaine bu ñu am ba pare waaw dañu war a jàppale nag li fi amoon nga xam ne amul coup d'état amul dara ñu dimbali ñu ba ñu sàmm ko ba mu ba mu mën ko jox suñu sët waaw loolu daal dañ ciy sant yàlla bu baax di leen gërëm yéen waa OTV ñu leen gërëm xam naa da ngeen jàpp. waaw ñu ngi leen di ziar jërëjëf ayca mu ngi noonu mu ngi noonu Papa Badulaay Ndoy loolu nga xamante ne moom la wax muy saltige ba Papa Badulaay Ndoy ñaanal ko yàlla bu baax tamit yàlla defal ko jàmm bu baax a baax en tout cas yàlla ñu yàlla jàppale ñu yàgg ko teewe at yu bëree bëri ayca jërë ngeen jëf mooy monsieur le maire muy Abdou Aziz Gueye di ñaan yàlla bu baax nee naa comme ni ma ko waxee sànq rek euh, li nga xamante tey moom mooy julli gi yàlla bu doon suñu mujj julli yàlla may ñu yàgg ko teewe bu baax monsieur le maire ginnaaw bi la nuyoo bu baax ziar la baalu la ak bu baax baax tey lay bàyyi kaddu gi nga waxtaan ak nga xamante euh, mm. moom la imam wax mu tënk ko ci li nga xamante moom mooy mm. euh, gëm-gëm mm. tey amoon kaddu yoo xamante ne ko yëkkati Euh, sant sant yàlla gannaaw bi sant yàlla junni ci yonent bi euh, ñu ngi euh, ndokkeel waa Ouakam yëpp ndokkeel Sénégal te di di gën a ñaax imaam dafa ñu gën a fàttali ñaax ñu si jàmm ji ñu ji ñu yàlla ji ni jàmm ji sax parce que du dul jàmm jàmm a gën te ñun si lañuy dox si la ñuy jëf di massawu encore coono di massawu waa ngor yi ñu suñu mbokki ngor yi leen massawu li leen dal nii waa ah, Wakaam ñu ngi ñu ngi vraiment masawu coono ñëpp si jafe-jafe askan askan bi jafe-jafe dëkk bi te di ñaan yàlla mu musal ñu bu baax a baax a baax te di di di sant di sant dolli sant yàlla te di euh, di ñaax nit ñi ñu gën a dal te teg lépp si loxo yàlla incha allah euh, yàlla nangu suñu koor te ñu fekkee am nañ yaakaar daal que incha allah lii si kanam moo gën a neex daal. Euh, ñu ngi euh, masawu coono ñëpp di leen euh, di leen félicité si si koor gi nii ñii or démb aussi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax addina bi yëpp vraiment Sénégal jàmm rek moo fi xaj ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm te di wax aussi ngëm bi aussi dafa am solo parce que boo amul gëm-gëm rek dara desatul si yow parce que boo gëmee yàlla gëm ne yàlla moo ñu fi teg ñun ñëpp yàlla moom mooy moom moom moo ñu mën a génnee si liñ nekk nii donc lépp dañ koy teg si loxoom te di ko ñaan mu gën ñu dooleel gën ñu euh, musal ci seytaane euh, incha allah euh, te ñun di gën a nekk benn pour mën a mën a atteindre suñu objectif. donc ñun ñetti gox yi fi des Ngor Wakaam Yoof yëpp maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen masawu te di leen ndokkeel ci ci bésu koor gi. Euh. est-ce que bon je félicite je tout le monde et euh, euh, pour dire aujourd'hui que le ce que l'imam a dit par rapport à la paix par rapport il faut il faut vraiment qu'on fasse tout pour préserver cette paix dans cette société aussi, aussi bien au niveau du Sénégal et surtout euh, en notre sein, au niveau des trois communes, Wakam, Il faut vraiment qu'on soit unis et qu'on soit vraiment, qu'on pense que aujourd'hui c'est Dieu qui nous a mis ici et Dieu va nous aider à, surmonter toutes les difficultés euh, auxquelles on est confronté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le, le, lieu de, de rendre hommage euh, et, de, de, dire aux, aux que qu'aujourd'hui, il faut que euh, qu'ils euh, retournent en Dieu et que la jeunesse, qu'on on les exhorte à mieux euh, voir de l'avant et, penser que demain, ce sera, bon. Demain sera un grand jour et, et avoir de l'espoir par rapport à tout ce qui va se passer, Inch'Allah. acca mu ngi noonu kon contentement la ñu am bu baax ci ki nga xamante ne moom mooy euh, Moussa le maire Abdou Aziz gis ngeen tey euh, li nga xamante moom la yëkki dénkaat ko ñi nga xamante tey moom mooy euh, jeunesse donc yal yàlla def jàmm bu baax a baax comme ni ma koy waxee rek mu bañ a doon suñu mujj koor moom it yàlla jàppale ko bu baax ci yen bi oyofal ko ko bu baax ba teel ko ko ba nga xamante mébét bi mu am ci dëkk bi yàlla dina ko mottali bu baax ak équipe leen taw feex ak kaddu yi nga xam ne moom la suñu maire bi nga xamante ne tey euh, moom mooy ñu jiite euh, yëkkati euh, dénk ko ñi nga xamante ne ñëpp moom mooy population Ngor Wakam Yoff kon yàlla na yàlla def tawfeex ak tey séeri yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar ci li nga xamante ne tey moom si weeru koor